يا لطيف يا كريم يا جليل حامل جميعنا بلطف الجميل kii noo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci turu banqaas bu mag bi ñu duppee commission sociale commission sociale di leen ci banqaasu Touba ca kanam mi nga xam ne yittee askan wi rek a ko tax a jóg commission sociale bu Touba ca kanam ci diirub màggal gi ak léegi mbokk yi commission sociale dajana lu toll ci 14 millions cinq cent quatre vingt mille mbokk yi ngir lan ngir bàyyi xel ñii ma leen di wax nii ñu tabaxal leen ay barabu suturukaay mbokk yi barabu suturukaay mbokk yi ndax jekk na ndax jaadu na fi jamono toll. ñuy seetaan ay nit ñuy manqué bay manqué ay barabu suturukaay mbokk yi loolu jekkul jaaduwul te mën nañ cee indi saafara nan lañ ci indee saafara nañu ànd ak commission sociale bu Touba ca kanam jàppale leen ñu saafara lii. te lu mën nek la ndax kat wet di gis bok ci mbokk yi dir bu gat ci la dajale 14 millions 580.000 defar ci 37 barabu kay waw 37 fanweeri wanak ak juróom-ñaar mbokk yi loolu nak buñ doon xol ci limu doomu aadama yi nga xam ni impact na len tollu nañ ci ñetti témèr ak juróom ñett fukk ak ben 381 loolu nak ci diru magal gi rek la mbokk yi yagul mën nañ wax ne ci dirup ñaar wala ñetti weer lay doon bokki commission sociale jambar yi nga xam ni rawati rawatina diaspora bi rawatina soxna yi waxtu wu nekk ñomit seen katan ñu koy def di japp ci commission sociale xamne ku jappale commission sociale jappale nga néew ju doole yi ku jappale commission sociale jappale nga ñi won dimbal ku jappale commission sociale jappale nga ñi tawat te ragal dem hôpital ndax amuñu luñu jëndee ordonnance mbokk Serigne Touba c'est l'homme le plus social de la planète mbokk yi xettali doomu aadama yi ak taxaw doomu adam rek ko tax commission sociale bu Touba ca kanam ci njiital Serigne Mourtada mom Serigne Abdoul Fattah mu Serigne Fallilou lolou rek moy ay yitteem ak jambar yi nga xam ñom la andal ak jambar yi nga xam ni ño nek à travers le pays waye jambar yi nga xam ño nek à travers le monde picc nga ca kaw waye xel ma ngi ci souf yeen wa diaspora yi di gor di jigen yeen ngi bàyyi xel lol commission sociale bu Touba ca kanam yéen a ngi bàyyi xel lool bokk yi yeyoo dimbal te nekk ci dëkk bi nga xam ne nii wuy si ku tedd ki rek a leen fi indi kon ku leen taxaw rek sëriñ bi nga leen taxawul lu leen waaye defal rek bi nga ko defalal kon jàppale leen commission sociale bu Touba ca kanam ñu jàppale ñii nga xam ne yeyoo nañ dimbal jàppale commission sociale bu tubaa ca kanam mooy nekk ci dëgg-dëgg yittey sëriñ bi commission sociale nag képp ku ci bëgg a jàpp numéro yaa ngi nii yoon yaa ngi nii mbokk ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér di sant mbooleem koo xam ne nii nag waxtu wu nekk buñ la fëggee muy gudd muy bëccëg yaa ngi leen di jàppale. waaye di leen sant di leen ñaanal di leen gën a soññ di tàllal loxo ñi nga xam ne tàbbee guñ ci liggéey bu rëy bii mbokk yi commission sociale a nga leen di tàllal loxo. yaa latifu yaa karimu yaa jalil haamil jamiana bilurfikal jamil